اه انفيس بان اعوذ بالله بسم الله ان ولي الله ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى صالحين بارك في صحمه ايدا سالم دغ دغ دغ سيرج باج يلا نفي ياغ لول تاع دغ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي سنغال بوكي ادينا ñi di ay cantakon di wa kër soxna ñenn ci ñun ñu dëkk fii ci gox bii di Mbuur ñoo daje tey bii ngir bëgg a wax ak àddina ci xew-xew yi nga xam ne mi ngi xew ci dëkk bi di ay wax yu ñuy yëkkati di ko jëme ci soxna su tedd si ñu bëgg a indi ak leeral waaye ñun tontante wuñu waaye tuuma kun ko teg yàlla na nga teg ko sëñ Tuubaa nee na li aay mooy yëkkati aw lay te tuuma jógul ba batalata shahaada rafi xabla rawmi lil la nee na li li neenal aw lay mooy da koy yëkkati ba tuuma jógul waaye bu tuuma jógee sañ nga layal sa bopp fi may tàmbalee samay kàddu jëm ci mbirum soxna ayda mooy fàttali taarix bu ndaw 1987 la sëriñ Saliou woo sëñ Béthio ba mu dikk ne ko def naa ci yow loolu ñuy wax ak jeex sëñ Béthio woo waxtu mi ngi fekk Cheikh Abdoul Ahad mu tedd ma di xalifa sëriñ Touba Serigne Abdoul Ahad bëgg ko lool fonk ko lool mbaaw gii la ko woo mu dikk bis. mu ne ko yàlla sama borom de xamal na ma ne sa xol bi sëriñ Touba moo ci ne sëñ Badiane ne ko ah Mbacke kon de bëgg nga maa wax ne Serigne Saliou mooy Serigne Touba ndax sama xol bi de sëñ Saliou dong ci ne mu ne ko noppil te déglu yàlla kat yemut ak man foofu xamal na ma ne sa yàpp yaram wi sëriñ Touba lañ ci mooñaale te sa deret jii Serigne Touba moo ci daw sëñ Badiane mu ne ko Mbacke mu ne ko ndax mës naa laa wax ne yow borom ngërëmal yàlla nga. mu ne ko déedéet Mbàkke mosoo ma ko wax mu ne ko nun njabootuk sëñ Touba gi ñun de duñ na la demal ca sëriñ tubaa noo ngi la fay fekk duñu le na eh, yow demal ñu fekk la fa wala ñun ñu dem yow nga fekk nu fa ñun de dañuy ànd ak yow ba ca sëriñ tubaa ndax mi nga def sëriñ Saliou sëriñ Abdoul Ahad Diall ilimaan ju tedd ja Cheikh Abdoul Khadir si wo sëñ ba ca bam ñew yobbu ko baxdad ca dekkum ba yend ko teral ne ko ba ca ndax xam nga lu waral lii mu ne ko dedet mbàkke mu ne ko bok gis da am xarito ci bir bok yi ñu doon Serigne Saliou day sama xarit ma bëgg lu ko neex bëgg am mbégam bëgg a dab mbégam tax ma wala dila teral mu ne bu ko yegge dina bég Cheikh Abdoul Khadir Diallo borom dëddug àddina ga sëriñ son yi bu jël woo ko ca biir këram teg ko ca wetu armoire am ubbi armoire bu tedd ba génne butéelu laj koloñ jikki bu mag xëpp ko ko ba mu jeex takk ba wiccax ko jël saañ ba tëjaat jox ko xottu butéel ba ne ko demal mu ñëw sëriñ Saliou ne ko nu mu def ak yow mu nettali ko sëriñ Saliou ne ko alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ Saliou ne ko demal nga siyaare ji sëriñ Mbacke Madina té bo éggé né ko mu jox la sa wal ci xew mi né ko digal na ko mu ñaanal mu aksi wax ko wali wu mag wowe koko ne ko mo wax lool mu ne ko waaw mbacké li dala mo wax mu ne ko akama maa yene yag la ñaanal waye awmu ci won ndigal ci tay bi bima ci amé ndigal di dana la ñaanal ba dara du ci dess te bu ma dina ci barkel wax yi wu neexatu firi <laughs> mu jall cheikh Muhammadul murtada kookee nga xamne musta mësta ku sen sa ngir yaatal yoonu Seigne Touba dawal otoom way ko aksi buntu kër Seigne Bacho timis dab ko dok dab ko mu gaari auto ci buntu kër Seigne Bacho ñu yëgal Seigne bi ne ko ku tedd ki aksi la mu daw gatandu ko ànd ak mom yëgal ko ci bu tedd ba acc ko ca kaw lalam ba waxtu timis ñu noddu cheikh mouhamadou murtada ne ko dama bëgg japp mu da dem indi ndoxum japp ca kaw lalam ba ku tedd ka ne ko indil ndap nga taataan sama njappit mi bo noppé nga diko barkelo ndox mo me señ ba ci teeku fi ku taal añ mbaa reer mu ne cioru ca cinna astu ku tawat dara metti la mu diw la nga wër Cheikh Murtada jall soxna Maymuna bintu Xaadimu Rasuul mu tedd ma sëriñ Saalim ne ko damaa bëgg sëñ Béthio mii nga yóbbu ko ba sa kër nga defal ko ab reer ci sa loxol bopp ak reeram du neex ko sëñ Béthio yaakaar maa sëñ bi de nee na ma defal la reer ci sama loxo bu tedd bi ñooñi boo gisee ma indi leen addina bi sëñ tuubaa jàllee ñu toll noonu amul ñooñee nag képp ku ñu fonk di bëgge bu la keneen fonk du la wàññi te àddina ñii fiy dox ku ci ñimee méngaleeg sa bopp ñooñu amul sëriñ Saliou yi sëñ Béthio doxal cant bi fekk ko got mu ne ko lii nga def loo ci jublu mu ne ko sant si la Mbàkke mu ne ko xamal ne yàlla bég na yonent bi bég na sëriñ Touba bég na ab jaam nag su ma nee yor wenn xeer jamono ci ñetti mbégte yooyu. Hmm. su ko bàyyiwaatee daa dof. mu jël yoon woowee def ko muy yoonam mu di cant gii sëñ Bethio di ko woote addina am ñu jóg ne day fo ñooña day tey jii la ñuy woote di wax fonkeel ci nit waaye ñoom de fonk ñu Serigne Saliou hmm. ndax bi sëriñ Saliou taxawee ci addina di xalifa ak yoonu murit samp sëñ Bethio convoqué mbooleem kuy kilifa hmm. ne moom mii moo tax moo leen damaa foogoon ne bokk gi ma bokk ak yéen Serigne Touba ak maam Cheikh Ibra foogoon naa ne bu ma sampee lu ma samp ngeen suuxatal ma ko waaye du ngeen ko bëgg a simpi ñoo ñii ñoo doon toog booba bi fi sëñ saali yu nekkee di sànni ay xeer sëñ Béthio di ko wax du ñaaw kon ñooñu mosuñoo jox war ma Serigne Saliou waaye sëriñ saali woo sëñ Béthio ba mu dikk ne ko doxin woowu muy cant gi bu ci soppi araf defoo waxoo li ngay def maa ko def li ngay wax maa ko wax bakkan nekku ci adina nekku ci lepp serigne touba la serigne baccio di wey di dox lola diko dox ñun ñi lu jot ñu gëm serigne saliw deg ay waxam am ay ciakuteef ay bëgg bëgg yo xamne gisunu ko fudul fa serigne baccio ñu dem joxe fa sun bop jaayante momit mu tektal ñu charte yi ñi jaar ba lañuy wut ci mom ñango mu diñu lo tek ñu ci aw yoon te ab serigne bu matee ab sëriñ la dox sa digg moom ba nga ko jébbalee sa bopp mooy ndigal la mën sëñ Tuubaa we nee na fa cheikhu sëriñ bu mag ba laa yuxaalifu l mushaffa du wute mukk ak aji ramm ja fa xaysuma xamarakal murabbi sëriñ boobee di yare di tarbiya saa yu la digalee fam tasil al amra jëfel ndigal la tasil li rabbi kon nga gis sa borom kookee mu ngi mel ni liir bu nekk ci biir ndeyam buum googee di dox digganteeg liir ba nga xam ne bu ndey ja lekkee mu lekk la dox seen diggante mooy ndigal la bu la digalee defoo loo defeti yaa ngay maq suuf ñun sëñ ba ca moom mii lañu àndal mu fàggul ñu lépp ci àddina xamuñu kenn demuñu fenn wormaal nañu ñëpp wor ma kat a tax saaga yi ñu dégg tontuwuñ ko duñu tuddal kenn ay ayibam ndax alxuraan dafa wax ni bu fekkoonte ne ku ku ku ma ja ku def ayib ma jàpp la jëlee la fi. Mhm. kon maa taraka alaya min daabatin kon kaw suuf du fi bàyyi kenn ndax ñëpp a dëkk ci ayib. Mhm. moo tax tuddaluñ kenn ay ayibam suñu ayib doy nañu sëkk. sëñ Bacco téeloo la dem ba yàgg yëg na jataayam ci kaw suuf mu ngay waaj a jeex. mu wooyu ñun ñëpp dajale ñu. li ngeen xemmeem ci man di ko topp di ko xëy suba ak ngoon. tohal na ko ci barab be bu ngeen ma noppé gis barab bobé di soxna ay desa bi ku baax ku ne seigne baytu am na la nañu jigen wa yalla de mom xébul jigen amna aw xet bu ñu woyé samuda gilé ma tax ñu alak leen gilé mu yonent yalla salih mo tax ñu alak aw xeet ndeem gileem tax nañu alak aw xet waxuma la nitaki yalla xébul kenn ñi gën ci lislaam yonent bi waxoon ko xayru xarnum xarni summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum xarnu bi gën ci kaw suuf mooy sama xarnu man Muhammad xarnu ba ca topp ca tegu xarnu ba ca topp tegu ca ña gën ci kaw suuf di saxaaba yi àndoon ak bi yonent bi làqu na ñaar fukki at ak ñeent xare am ca Irak sunu maam Aïcha mooy seen kilifa jiite leen ci xare oh. yonent bi ne ci moom mii ngeen di xamee seen gën wàllu diine te booba ponkal yu mag ya àndoon ak yonent bi yonent bi tàggaleen nu ne ñoo nga teew ñenn ca ñoom ca ginnaawam lañ topp foofu duma fa dugg ndax tolluñu ci leeral ay masala fiq sëñ Béthio yëfam yi moom ko fàggu ko téye ko liggéeyal ko turam mu dem kaw lépp àdduna mas-masi wut si ko kon loolee mu yor ba loolu yóbbe ko foofu fii loolu moom du ko fooyee du ko def fu mu yëllu moo tax moo xool fa ko neex mu def ko fa ñun ñi nga xam ne moom lañ bëgg moom sëñ Béthio bëgguñu yëfi keneen ndax kenn mosu ñoo gis ci benn buntu kër ñuy xaaraan yi lenn sëñ Béthio rek moom moo ne ñu loolu ngeen bëgg def naa ko ci soxna ay demi nenu képp koo xam ne ci yéen bëggati naa koo liggéeyloo ci dëgg-dëgg soxna ay demi laa leen boole li ma am sëriñ Saliou jox ma ko la ca gën laay tànn boole ko moom ñu ànd jëfe ndigam la alxuraan nee na allazina yanquduuna ahada allahi min baadi michaaqihi wa yaqtauuna maa amara allah bihi ay yuusala wa yufsiduuna fi l ardi ulaahika humul xaasiruun am na ñoo xam ne man yàlla dañ may dig buñ ma diggee ba ma wëlu lañ ma dig ñu jàdd war ma am na ñoo xam ne duñ yem ci war ma dañuy fekk li ma digle mu war a ànd war a doon benn ñu jël seen paaka dagg ko duñ yem ci dagg ko dañuy xool ñu am pas-pasu def la ma wax ñu bëmax leen ci bàyyi la ma leen ñoo digal ñooñee ñooy ñi nga xam ne ci kaw suuf ñoo perte ñun ñu war mukk sëñ Béthio ay ñax yu yu woowoo ñu tane woon moo ñu téye ba ñu toll nii mel nii kooku du ñu digal mukk ñu di ko fi bàyyi di déglu keneen li mu wax lañuy ñuy def duñ ci raf tarafatal ay ni soxna Aïda Saliou mii lañuy ñuy àndal faw faw ñu di wax booy menacé ak a tiitalaatee da nga koy def ab ragal waaye koo xam ne moo la ëpp fit hmm. boo ko dee jéem a tiital ay ree da koy jàpp hmm. waaye tubaab dafa ne nul n'est censé ignorer la loi hmm. te ñu nekk dans une république régalienne un état de droit sunu sëriñ dafa def 36 ans de carrière administrative administrateur de classe exceptionnel, nekk un légaliste jàng droit liggéeye ko appliqué ko mas ñoo bëmax ci na ngeen fonk yoon moo tax li ci yoon moom dañ ko koy jox dañoo am constitution boo xam ne ki koy wattu mooy président de la république constitution ba dafa garantir ne képp ku dëkk ci réew mi fu la neex ci réew mi sañ nga faa am dëkkuwaay amee ko ca charte ya nga xam ne nan la ñu koy amee charte yu jub ya nga am ko boo ko xasee am na la nga gëm sañ nga ko fa dundal ka gëm aw xeer aku doj mbaa bant kenn amul droit

naan dañuy menacer du ñoom ñooy jël xeer wala yat jiita mbooloo na ñum ñuy song xalaatuñ ko ku ko def say mbokk duñ gis sa yax ñoom duñu ñeexum ñebe kenn duñu ñeexum ñebe kenn loolu picc yi naaw sa xam nañ ko ba tax na gudd mu gàtt mooy ñu ngi yëgal àddina ne yoon wañu sëñ ba co tegoon ñu ànd caag moom nangami at mosu ñoo fëgg kër kenn ne may ñu nangam. Hmm. yoon woowee duñ ko wàcc. toxal na lépp ci taalibeem bii di soxna Aida Saliou. Hmm. foofee lañ ne duñu fa jóg. Hmm. bu fekkente ne da nga ne patt nag tontu woo dañ lay jàppee ab ragal. te wallaay walla cantaa kon mënta doon ragal. ku jaar ak sëñ Mbacco fi nga jaar moom ba si fii. man de gisatuma ci àddina looy ragal. waaw te kat ngëm ma fàttaliku ku ñuy wax Abu Ubaydala Ibnul Jarra. mooy ki njëkk dagg bopp baayam ci lislaam hmm. doole ngëm laa la bëgg a wax hmm. xare ba am na ngoon ñu war a def duel ñaar ak ñaar Xaalid ibnu Walid ca booba mooy général de guerre yéefar yi mu génne aljarra muy ponkal mu bari doole lool ndax xeex moom bu amee dóor bu njëkk day daal hmm. mu ne ponkal mi su génnee su njëkkee rey kenn ci ñoom ñu tiit dinaa leen jekk yonent bi sallallahu alayhi wa di xool ci mbolom ana kan mo wara meuna mengo ak jarra hmm. di xol di xol ba yag rek goné gu ndaw bu tuti da di genn yonent bi ne ko mo abu ubaydal yow xam nga ki mo ne ko ah fudul yow mi taxaw fi ma ma gëna xam ki man ki moy sa bay hmm. ku fudul yow ku fi taxaw mako ko gëna xam mo hmm. ne ko tol mo ne ko melayar, yaram la yor te man dole ngëm la yor yonent ba deug waxi gone ga dadi arrière nako bayina la yalla jasi ya dalante pousser ba juk ken gisatul sa morom keleng keleng kanamam gu tedd ga ñagas aboubacarin siddiq Tek ko loxo ci mbag ne bul def ni bul jaxle yalla du la teg kersa keleng keleng ja jeex pënn ba wacc abu ubay dala dagg bopp baay ba tey ci karaw ne am yonent bi doole yaram la yoroon te man doole gëm la yor hmm? motax ku gëm da ngay respecté ngëmu jàmbur moas ibn jabal ba ko yonent bi di yabal yemen ngir mu def fa lislaam dana ko ñom kat ay yéefar lañu waaye bis bo demee xébal leen lañu gëm la nga fay yobbu da nga do ko bul cior liman bul fekk ngëmu jàmbur nga diko cior hmm. cheikh mouhamadul bachir mu mag neexoon jikko tedd daana wax ne jubbanti ba ca gën day ànd ak yërmande nee jubbanti ba ca gën nee day ànd ak yërmande waaye koo moomul juróo ko jëndoo ko mu ngi gisee ak Serigne Touba am ngërëmal Serigne Touba te xamul mën nga koo jaay affaire kenn mënu ko duma ko guddal fii laa ko yemale foo dem ci réew mi am nañ fa ay kuréelu kuréel bitim réew foo dem am nañ fa ay kuréelu kuréel aka neexoon ku am fit nga jox ñu rendez ci barab danga xam ne ñun duñ say ragal waaye tàgguwu ci Masamba wóorutewul ndimbalu kenn dañoo xëy xëy sotti mu samp ko te noonu la demee lu ñu mën a am nag jàmm ñu ko gënal ndax ak cant sëñ Saliou daa sëñ Béthio da ngay bég jubloo bégal kon loolu jàmm rek ci la mën a xew waaye bu ñu mënta am jàmm kat fu ñu waay woow ñu wuyu la fa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma ne soxla Aida Saliou lañ gëm tey moom lañ gëm ëllëg moo ñu gënal suñuy ndey gënal ñu suñuy baay ku ñu tee ànd moom jaay nañ la suñuy bakkan barki Serigne Bamba dëgg la